daaw si heure bi suñ président ñoo na fii di wax ne problème yi inondation bi problème boo xam ne dañ ko réglé avant cette année mais malheureusement xool leen ndox mi nu mu yem ni kër yi yëpp dañ inondé ñoom ñëpp ñëpp génn nañ depuis suba ba léegi ñu ngi si nekk di leen di jàppale mais lii xam nga amuñ solution solution bi am mooy rappeler au président di ko wax ne ko Sénégal gi benn Sénégal la te buñ xoolee temps yi yëpp passé luñ jël si xaalis pour jënd avion boole kook ak terre loolu yëpp ay dépenses de luxe la yaakaar naa priorité yi war nañ ko mën a xoolaat au Sénégal Il y a des ni qui kër yi ñu nekk nii démb nelawuñ tey duñ nelaw problème inondation à Kermassar, Massar heure bi ne dina fekk ñu mais malheureusement régler wuñ dara depuis bañ nekk fii ba léegi def nañ fi ay déviation oto yëpp yàqu maintenant Sotrac Alaaji Paté même chose et malheureusement gisuñ solution nous exiger une prise en charge de ces populations là problème bi problème da par anticipation c'est-à-dire que problème bi déwén moi mooy seen ultimatum ren jeex faire leen ndox mi vraiment fait tout pour que ndox mi bu